habitat céramique ak Azulev carreaux yu qualité carreaux yu am fit et ci établissement Serigne Fallou 28 si ay njëkk yu amul fenn manam ay prix imbattable jaratul ngeen di dem feneen di lenen ndax lepp li ngeen bëgg si walum sanitaire wala ay carreaux yu baax daw gaaw si établissement Serigne Fallou xolal ma yi matériel yu baax bokk si dernière génération waaye ba xam ngeen ni lii fii rek la am teg si nag garanti wàllu ngeen waxati établissement Serigne Fall 28 mu nekk fee ca numéro 296 côté centre aérien bi ca téléphone 33 860 83 79 wala ngeen woote ci 77 670 99 39 33